mbirum enregistrement audio bi dox ci diggante Marie-Louise jaw ak ay dara mi ngi wéy di lëmbee réseaux sociaux yi Marie-Louise Diaw nag li mu bëggoon moo di yàqal Racky ay dara am waaye tamit doon na ko menacé ni day dem fekk ko ca këram dal di koy dóor waaw Marie-Louise Diaw nag li mu bëggoon dëgg-dëgg moo di yàq diggante ay dara ak footballeur bi di Babacar Gueye li ci gën a doy waar nag Babacar Gueye moom faru Marie-Louise la woon avant muy gisanteeg Racky Aïdara mu mel ni rek Racky Aïdara dafa nangu Babacar gi ci loxo Marie Louise lu waral nag ba enregistrement ojo bi dal di fuité lum mu ci mën di doon dafa mel ni ki di Marie Louise Diaw moo enregistré woon conversation ojo yooyu yu doxoon diggante moom ak ay dara ndax ci boobule ojo dégg nañ ci baatu Marie Louise ak ñenn ci ay xaritam ñu yàq lu mel ni xeme Racky Aïdara. allo. oui. ban Marie-Louise. xamoo ban mari louise Marie Diaw. waaw. Ah, va. yaa ngi ci jàmm. cool ni. alhamdulilah. Euh, dañ maa woo léegi am wax yu ma wax yu ma jaaxal. en venant de toi. wala ñu la wax. waaw. ci lan. parce que parce que da nga dem ci Babacar Gueye. Hmm. ne ko que vite fait nga ma xam sama jikko neexu la baaxuma dañoo dem Thiès man ak yow. bokk xawma ma hôtel ma nekk fa góor ak di wax yu dul jeex yu bari jarul may dugg ci détails yi man xam nga ma ku ma lu ma waay def dama lay woo war ma fekk la sa kër lijjanti ko ak ku mënti doon ci àdduna dama ne lu waay wax wala lu ma def damay koy woo ñëw sa këram yow danga ñëw nga ne sama fan sa nga danga maa bëgg yaax saf nga ñëw ma ubbi la samay porte robe ma jox la yére ma jox la nga sol ñooy ànd baali def lépp euh, non da may déglu ma déglu ma déglu ma déglu ma déglu ma déglu ma déglu ah, ah, sama daal masuma mm, yor nga whatsapp su ma paree loolu dinaa la ko yónnee xëy na da nga fàtte déglu ma pare déglu ma ma pare rek jël sama frère may la ko ngay génn ak moom muy Abdou Aw ak yeneen ak yeneen ak yeneen yow tey yow yaay xëy ne man danga may yàq parce que man damaa bon moo tax nga bàyyi ma. waaw ak après après après nga ne rek man dama bon man di wër di ma yàq si Babacar Gueye pour pour ndax parce que da nga bëgg mu takk la dimanche. Euh, mu takk ma ak mu ñàkk maa takk ak lu mu mënti am loolu man aw ma benn compte bu ma lay rawal. non soxla ma nga raan ma kon mais dama la ne beneen yoon a tee pour bu la naxa dalee laa la wax de xam nga jàmm laa njëkk si laa mës ma man ma ku ma ragal mais man xam nga ma rek ay dara man daw ma saala yaay ndeer fekk la sa kër googu noonu nga toog ak ku mënti doon ci àddina def lu fay def la mais dama la ne beneen yoon a tee nekk la ku neex déglu ma déglu ma nekk la ku neex ci àddina mais dama la ne dama la ne nga gérer li ngay gere nga gérer te nga génne sa làmmiñ man sama tur looloo tax ma woolaa yow. ankay ah, boo ko waxul woon du egg si man. Eh, ki amul ki la ko wax wala nangam ak sangam dama lay wax rek. yow barki démb moo barki barki démb moo njaay téléphone boobu. <laughs> Ah? allo. téléphone boobu ko may ma ma naroon ko wax Cheikh Kouyaté ko may. dama ni man bu ma bëggee Babacar Dieye takk ma. du ma bàyyi. du ma du ma du ma ko du ma fi nekk di yàq deru kii que ce soit. Babacar li ma waxante moom moom xam na ko daf ma laaj dama lay fréquenté ma ne ko maag Marie-Louise fréquenté nañu. benn abs de temps ma ne ko ñu bàyyi ñu bàyyante ku nekk jël sa yoonu bopp. ma ne ko ma Marie Louise du ñu wax parce que dafa dem Thiès fanaan ak sama far Ablaye Dieng comme xam nga mais bu fi nekk di naan ay danga maa joxe yére ma sol man musuma sol sa yére. raki musuma sa dërëm musuma fanaan sa kër. raki te musoo ma présenté beneen bopp bu Abdou Aw te Abdou Aw laaj ko est-ce que maag moom mës nañu génn wala mës nañu def dara lu ñàkk fayda. raki waaw raki yaa may ne damaa dem fanaan sa sa copain Ablaye Dieye. Ablaye Dieye nga fanaan ndax moom moom loolu ma ñëpp jot nañ ci. ah d' accord léegi baa léegi léegi d' accord naa lool léegi léegi déglu ma léegi nga ne ñëpp jot nañ si d' accord loolu su ma paree Ablaye Dieye naa ko léegi yow dama lay laaj yow. yow est que ñëpp jot nañ ne que barki dem moo Ndiaye nga yàq biir ñëpp jot nañ ko téléphone boobu nga yor Cheikh Kouyaté moo la ko jox ak ñëpp d' accord nañ que Seydina Seydina Laay moo lay jooyloo ba xam nga ne yow mariage bi du am ba xam nga loolu yoo xamoo ci kan ngay dugg de bu nekkee pour pour sos pour. non doon saaga doon saaga. bon la nag war a soxor lu mu ci mën a doon Marie-Louise jaw moom li mu bëggoon amut ndax li am ba des mooy ay dara ak Babacar Gueye ñoom marié nañ si jàmm li leer ba leer nag gita ngaas bi dox ci diggante Marie-Louise ak ay dara mel na ni xaajagut bay jeex ndax ñaari célébrité yi ab guerre bu metti lañ nekkee ci réseau sociaux yi lu waay xamal sa moroom yaa ngi koy sulli di ko publier ku ci nekk ci ñoom ñaar noo mën a def ba yàq deru moroom yaa ngi koy jéem wala naa la jot waaye jégal mais rakki moom nee nag sëy sëyam noppi ndayam Marie-Louise amul nday dara lu mu Marie-Louise fii lay ñëw bu ñëwee fii gars yi di tëddee ndayam fii lay ñëw jour yi di tëddee ndayam man maa ngi fii France lu xam nga ne maa ngi France Marie-Louise am nay temps ma doon wax ak yow temps bu yàgg ma ne mu ngi woon fii fii lay ñëw gars yi di katt ndayam rek ñu koy juutal rek doomu xaraam yi mu ñuy dafa perte instant yi perte na moo tax mu nekk fi di rëy ndeyam man dama gis yi liir audio yi sànq nii affaire dafa ma metti doomu xaraam la rek ma Louise caga bu bon la fi lay ñëw gars yi di juutal ndeyam maa ko def sax man fa ma perte photo ay photom rek ma ko pertul woon dama la koy envoyé mu rakki yàq ndeyam moo xam ndaama ay waay ndaama nekk iñaan am na soxor am na waa soxor a ngi am ci mim réew ba tey yow ab caga nga góor gu jot katta góor gu jóg dugal la si góor gu jot yóbbu la vacance góor gu jóg fanaanoo la katta la ba sa data bu tas Marie Louise mii tamit tamit tamit est-ce que ça va ndax Marie Louise est xelam Marie Louise lay tëkkaleel boppam xale bu ndaw shérif dox si diine ak lislaam tëdd heure jóg heure xam fi muy teg tànkam may wax mu ne noonu daa def coalition booloo ay nit ne day enregistré programme kii ndax man naa yàq say jàmbur bi kii mooy mankan kunkan karankan kii moo téppil fa ndayam kii moo dof pour moom li da si am man Louise nekkati ni moom yegg na fii moom xale yi si moom la ñuy jàngee jour yu ndaw yi si moom lañuy jàngee kattante xale yi moo leen jàngal kattante yënga loolu mbaa man Louise moo jàngal xale yi pour pro xaw ma pro man lañ koy wax xaw ma footballeur yu ndaw yi man Louise moo jàngal kattante moom footballeur bu ñëw mu ibbil ka footballeur bu ñëw mu katta ka mu ne moom day gis naar bële Chérif bële nga xam ne xale bu ndaw la tollu ci digg sëyam ñu gis ka xam ne kii ku baax la tànkam bi yem na fi mu war a yem mu ne mënu nekk ah tamit. man yoroon man dama yoroon ay photos am sax mu nekkoon fii man photo naa ak moom fii. lan lañ gis ñaan moom ñu ñu ñu ñu kii noonu ñu def ci kii bi noonu fii lay fii lay ñëw man maa ñaan ñooy ànd ñaan ak sama beneen frère jour bi ñuy ñëw ak euh, yeneen copains yëpp Metz fii la ñuy jouer Metz France fii FC Metz ñu ñëpp chaque jour ñooy ànd chaque jour kër ñaan ñuy lekkeek yëpp fekk naa ko fa maintes fois doomu xaraam la fii lay ñëw gars yi day ñëw bu demee Paris jour yi foofu laal ko foofu bu ñëwee Metz fii gars yi ay ay ayloo fii mu ñëw fii di ngand ngandul gis nga wóor na naa Seydina Mohamed sama téléphone boobu dafa dama ko envoyé Sénégal dama ko may sama sœur bi mais bu du woon loolu dinaa la wan nday photo yëpp photo mi mu nekkee yëpp caga la moo gën a pert fii yéen ñoo fi gars yi di ñàpp ndayam non yéen ñi soxor la quoi kii dafa soxor soxor la Marie Louise danga xamoon maa moom ñoo dëkkoon sébi ñoo bokkoon benn école bi ñu doon jàngee sébi dama ko xam bu baax da doon muuru bu baax da doon muuru nga jékki-jékki dindi ko ñëw Dakar nag soppeeku di gis ceeb bi nant foofu rek commencé dañuy jaay nante fii non ndaama cee ndaama man dama jommi mais ma louise ay doomaraam <laughs> waaye rakk bu mu wax bu mu saxar xam nga lu tax waaye naan mbéjum kanam magam moo koy fajal boppam xam waaye moom réew mi ci boppam ñoo ko fajal mbéjam te te commentaire YouTube yi xale yi lu ñu waxalul Marie Louise ci lu bon dañ ko fàtte amul nit rek bu wax raki A wala B amul nit ñi defuñu Marie Louise mii dox ba ràbb topp façon góor bu ne ci réew mi footballeur bu ne ne ko écartel mu dugal moom mën na yàq kenn ak di sosalaate di duul jikko caga yii caga ñépp leen lañ ko xamee mooy ñaawlaam ñi ak mën sos mën fen ñoom ak góor jigéeni ñooyam seen jikko justul moo tax mu ne yéeyaay da ko enregistré ba koy tuumaal di ko sosol noonu di ko wax ay biir yu yàqu ay kii moo la sa téléphone ak kee mooy sa farak patati patata ak sëy bi am sëy bi am la waxoon du sëy bàyyi noonu am na ba ñëpp fàtte Marie-Louise bu moom mooy kan Marie-Louise dafa yaakaar ne mooy yàlla di wax naan la da ko ragal parce que Cheikh ba muy xoolee benn bët moo man man Marie-Louise lii dañ ma ko transféré Binta moo ma ko transféré ne ma waaye Marie-Louise nit la ma déglu ko ba mu jeex ma dégg fin bi ay saaga ma ne waa kii di saaga awala ah, wala ñoom abi dama jóob ay minit rek ginnaaw ojo Modou Modou bi doon révéler ay accusation yu doy waar ci Marie-Louise te doon dénoncé waale pièce bi nga xamante ni ñenn ci xariti ay Aïdara yi def nañ ko ko moom immigré bi mi ngi indi yeneen leeral. wali xam nga sànq yaa ngi rëpp di ma saaga di wax affaire kenn xamul. man lii man sax daf ma metti billaay wallaay talaay je te jure gis nga man ñaan jiwuluma loo xamante ne man war naa ko mën a waxal lu ñaaw wala mu def ma loo xam ne war man war naa ko def lu ñaaw au contraire man damay ñëw seen kër nga damay jox ma lekk ñaan daf may jox ma lekk waaw jàmm laa seq moom xamuluma ko dara xamaalewuma ko dara Marie-Louise xawma ko xamaanuma ko gis nga bi coolee amee noonu man bi ma la envoyé noonu affaire noonu ci ngoon xam nga dafa am benn cousine boo xam ne day ànd ak ñoom rakki lay àndal sama benn cousine yaayam euh, ak sama pap ay cousin ay cousin cousine lañ quoi Binta mu woo ma mu ne ma yow du médecin nga nekk ma ne ko waaw may médecin mu da nga xam ñaan ma ne ko xam naa ñaan bu baax kay mu ne ma yow Marie-Louise dafay ñëw foofu médecin ma ne ko Marie-Louise kan mooy kooku ma ne ma te mu nekk si coow rek rakki ma ne ko noonu Marie-Louise moom su ma ko gis médecin xamee ma ko fii sax médecin mosuma ko fi gis kër ñaan moom dem naa fa moom maintes fois mais mosuma xaw ma kan mooy Marie-Louise mosuma ko gis foofu. ma mosil wax ma rek ñun instant dañoo bëgg ay information yi leer ma ne ko billaay xaw ma ko mais bëggee information man ci man nga koy nga koy jaarale mu ne noonu dama xam ne yaa ngi mes te yow da ngay fréquenté da leen di fréquenté ma ne ko billaay xaw ma ko. wóor na yàlla léegi tey dama toog bi ne taa ñu woo ma noonu ñuy waxtaan mu na ma yow gis nga sa audio yi xaw ma lan ma ne ko fan audio lan. mu ne ma xoolal internet yaa ngi youtube xaw fan sa baat la mu ne ko sama baat man mu ne ma waaw ma jël sama téléphone ma woo sama cousine bi ma ne ko yow keroog bi nga may enquête affaire yooyu noonu yow lan nga def ba ba jël sama voix wala dara ngeen dem xaw ma da ngeen def jël sama voix di dugal ko xaw ma youtube xaw ma lan mu ne ma man ma ne ko waaw mais keroog de yaa yow yaa ma laaj si affaire yu ñaan fii yaa ma ci doon laaj de mu ne ma attends xaaral ma xoo laaj ñoom abi mu jékki-jékki ma koy waat nangu ma jël ma woo ba sonn nangu ma jël ma waat ko ma ne ko Binta wax ma. excuse euh, appel moo ko daggoon nii léegi léegi ma ne ko Binta wax ma yéen lan ngeen def lan rek ngeen def yéen ba ba instant man sama der mu ku ne mu ngi sama yaay mu ngi ma woo léegi nii di ma wax ay affaire audio gi kenn xamul sa voix lañ dégg xamul lan si la ma expliqué mu ne ma man ñun dañ la buggoon espionné dañoo jël sa voix. léegi keneen mooy wax dañuy jël sa voix dugal ko xam nga yow yaa ngi fréquenté foofu fa ngay toog ñu defar suñuy affaire pour mën a dugal euh, Marie Louise billaay wallahi parce que alxuraan karim maa ko téléphone mu wax ma ko nii ma jël euh, batteuru kii euh, ki yor piano waali Benjamin ma woo Benjamin ma ne ko Benjamin numéro rakki laa soxla rakki ay dara mu ne ma lu xew ma ne ko liiral la youtube bi am na benn ojo bu fay dox mu ne ma mais lii dégg naa ko mais seetlu ma yoon bu baax mu xool ma ne ma mais booy si sa voix la lii dama nga réglé ko ma jël sama numéro déedéet mu envoyé ma numéro Racky ma woo ma ne ko Racky yow xam nga ma ne ma xaw ma la de ma man maay Jules gis nga vidéo vocal bi ñu def vocal bi ñu dugal youtube man la man lañ ci man lañ ci dugal lan moo tax ngeen def loolu ak yéen fan ngeen jëlee sama samay samay vocal wala sama voix mu ne non abindooy bintaloo moo ko envoyé abindooy abindooy jël ko dugal ko dem jox ko xaw ma benn technicien la xaw ma lan mu dem defar ko monter ko ñëw ñëw kii la ñëw euh, dugal ko kii euh, YouTube pour mën a kii pour mën a avancé ko ma ne ko leen boo leen avancé ko su may voix ngeen di jël ak kii mu ne noonu loolu rek lañ mënoon def parce que binta moo xelal ne carrément yow yaa ak ñooñu yéenay fréquenté billaay affaire bi nii la deme wër na yàlla man daf ma soge xaw ma affaire bi lan la ku nekk di ma woo di wax affaire bi jaaxal ma dama mujjee jël dugg internet jël gis na site yi ko dugal yooyu yëpp ñoom ñëpp woo naa leen téléphone ma ne leen man lii ñu def nii dañ ma ko sosal dañ ma tooñ billaay wallaay dañ ma tooñ sama yaay suba suba suba ah billaay wallaay wala li ma lay wax day plainte sama sama sama kii bi sama cousine bi nee na suba da kay jóobu ci yoon billaay wallaay tallaay wali wër naa alxuraanu karim dañ ma tooñ billaay wallaay tallaay li ma lay wax nii dañ ma tooñ tooñ nañu ba si kanamu yàlla nga woo ma wax ay wax di wax ay yow si lii ak lii man ñaan ñaan diwalu ma loolu billaahi wallaahi ñaan diwalu ma loolu barki alxuraanu karim man li may dund fii rek man dafa métti taluma sax nekk fi di di ay affaire ak leneen ak leneen leneen wuli billaahi wallaahi talaay barki yàlla am naa lu ma métti torop torop torop torop billaahi am naa lu ma am naa lu ma métti torop torop dañ ma tooñ billaahi sama voix lañ jël dem dugal ko ci ay ojo dem defar ko monte ko ah ñoo ne mais dans tout cela kan mooy Babacar Gueye jëkkëri Marie Louise mi waral coow li moom mi ñaari xale yu jigéen yi doon xëccoo mel na ni ñu bëri ci askanu Sénégal xamuñu ko ndax daanaka ca club ba muy football di Paderborn nekk ca Allemagne la muy toog ci banc moo ëpp loole moo waraloon ba Babacar Gueye dal di dem ca deuxième division bu championnat Allemagne ca benn club bu ñuy wax Karlsruhe SC mu nekkoon ancien joueur Dakar Sacré-Cœur Babacar Gueye jaar na ca Troyes nekk ca Allemagne ak club bi di Saint